asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 20 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey fa ñuy xëy doore ko mooy ki nga xam ne nii daal moom moo di Luc Nicolaï ak jàpp ba nga xam ne boog wala arrêté ba nga xam ne def nañ ko ko démb fa nga xam ne mooy ca Thiès ña ko def nag nee nañ du ñenn ñu dul waa brigade de recherche ba nekk fa nga xam ne mooy ca de Thiès loolu la ñu yëglikaay yi xëy tey xamal moo xam ki nga xam ne nii moo di record la sunu làmb la tribune wala fu mu mën a doon wala Leewtoo point net ñëpp xëy nañ tey xëy ci xibaar bu amateur la moom la muy tiit daal combat Ama Baldé ak Modou Lo lay maanaam mu jaare fa daal daal di yàqu wala cat dugg ca moom su daal loolu la xëy tey wax nu ko waaye bu nu continuer tamit dañuy dellu fa nga xam ne nii mooy biir écurie Fass écurie nag tête de file ba moo xëy tey xëy ngardaajoo yëglikaay ba dal di xëpp Balla Gaye de xeme bu méttee méttee métti muy Gris giri daal la mu xamal Balla nee na ko yow lu yomb ngay wër lu nooy nepp ngay wër te làmb ji lu nooy amu fi li leer ba leer mooy sa digganteeg booy Niang yow Balla Gaye yaa gën a xam ne du combat Gris Bordeaux nag moo ko wax ci sunu làmb nee na ko sama digganteeg yow mooy làmb ji ma ne ko déedéet giri na ma aha loolu moo am moom Balla Gaye numéro man la war a ñëw ñu bëre leeral suñu diggante ndax maak moom gontoo nañ fi di bëre suba wala boog tàkkusaan ba timis te jël la amu fa giri moo wax loolu nee na daal li leer ba leer kon Balla li ko war mooy na takku fitam ñëw maak moom nu leeral te mu bàyyi booy ñang ndax daa jàpp ne foofa dafa nooy nepp ci moom ka nga xam ne nag moom mooy kilifa giri ca écurie Fass di mbay Guèye moom xëy na di wax ci mbiri Papa ci dàq ga nga xam ne daal dàq nañ ko ko ca ba nga xam ne nii moom moo di Fass xanaa mel ni ñoom dañ caa ànd ba wala dëggal nañu ko yëglekaay bi xëy na tey ñëw ci waaye li leer ba leer daal dàqu Papa Sow googu tamit yëglikaay bi di record ñëw na jàngatal ñu ko li indi sëy ba tal di tas nee na li leer ba leer boo bëggee dégg-dëgg moom mbir ma mu nga doore ca combat Papa Sow ak ki nga xam ne nii moo di Lac dëggee Guiers numéro ndax booba day papa daal nañ ca gaay taxawoon wala staff ba naqari woon na ko ba mu wax ko ñu ne déet ni waay digganteem ak itam Papa Sow dal di xaw a wan waa ginnaaw waa Fass daal di jublu fa nga xam ne moo di parcelle mu am ca defet tamit coow la gën a bari Papa Sow tamit rafetluwul seen taxawaay dafa pare tam daal di dëggal diggante mag Modou Lo daal di ko ne bu baax a baax a baax loolu nag bokk na ci yi nga xam ne daal yëglikaay bi ne na li leer ba leer bokk na ci li indi tey mbir mu mel ni ki nii jàppal ba tey tamit l'observateur ne na daal li leer ba leer code ba nga xam ne nii moom lañ tëral daal code booba daal daa mel ni moom itam moo indi li nga xam ne nii tey moo am ba Papa Sow génn fa nga xam ne moom moo di écurie fas yëglikaay bi di laa tribune moom dafa ñëw ca tafaatin ba tey ak Gris Bordeaux Gris may laaj Balla gay daal moo mook Tafatine yëglikaay bi ne ñoom ñaar fi mu nekk nii fi mu nekk ni daal daa ni ci wurum adversaire gu méttee métti la ñu ne ñaar ñooñu mu mel ni ki daal kon ñoom daal bëre fi mu nekk ni moom bëgg nañ koo def bu baax a baax a baax bu ñu gisee koo xam ni boog dana tëgg seenub combat yëglikaay bi di la tribune moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye ba tey bu ñu delloo sunu làmb moom Xaadim Gajaga daa mel ni day mu ngay tontu waa Fass bu dee ñoom dañoo dàq ki nga xam ne ni moo di Papa Sow jàppal yëg li kaay bi na Papa Sow kër écrit wala boog lan lay def xaarim ne na loolu lépp daal moom Papa Sow lu ko ci neex na ko def waaye nun waa parcelle moom nun ñi mu dëkkal te bokk ak nun ubbil nañ ko suñuy bunt accueillir ko accueillir boo xam ne daal bu neex a neex la ndax nag ne na moom Papa Sow raflewul fa mu dem wala ñu ko jàppale kon daa mel ni waa parcelle moom ci kàddu xaarim nga jaga daal pare nañ ngir Papa Sow ñëw ca seenub écrit ñu ànd ak moom continuer seenub liggéey yëglekaay bi moo xëy dalal Xaadim Gajaga mu koy wax koo xam ne nii moom fa mu nekkoon di Gambia toj na ko rajax muy jamaykee yëglekaay bi ñëw na tey ci moom mu mel ni ki nag jam moom la mu bëgg daal ne na juróom-ñaari galaa daal bëgg na ko organiser moom jamaykee mooy wax waaye sunu lam daal la mu seetlu mooy ne jamaykee daal star la ca biir Gambie rawatina nag ba mu tëggee làmb ba bët set daal fu mu aw ci mbeddi gàmb yi ñépp di ko akolaat di ko wan ne ko daal yaanu saf te yow la bëgg mu mel ni ki kon jam daal ah, dafa mel ni daal fi mu nekk nii ca Gàmbi moom ci li yëglikaay bi wax booy jël ci wàllum promoteur daa mel ni kon est-ce que nekku fa numéro un loolu la ñu yëglikaay bi xëy tey ñëw dinu ko wax waaye li leer ba leer itam daal jàppal fa nga xam ne nii moom moo di ca Leewtoo TV bu ñu fa demee daal lañ fay fekk mooy camp pénal ga nga xam ne nii fa lañ demoon démb ñu tëggoon fa nag làmb ña nga xam ne ñooy détenu ya doon ko bëre ca seen biir waaye li leer ba leer daal Modou Lo roi des arènes mu nga foon général Malika meilleur lutteur de mu nga foon guy gi mu nga foon le roi de simpi saa Thiès bu duubalees mu nga foon bëri woon na ay mbër yu fa nekkoon ñoom mbay gi si ñoo rek mama yaag buusi taak mbër yu baree baree bari invité woon nañ leen ñu ñëw teewe xew woowu ñoom Adama Diouf Ansel Fall ak ñoom Mbayang Fall kenn ratewu kon ba ci yaay jaaga sax yaay Waly Seck mu nga woon ca biir xew ma mu mel ni kii ndam daal détenu yi gars yi fàttewuñu leen waaye li leer ba leer daal man maar dem bi may bi may dem reportage ba tey dem reportage bi ma dem moom daw na sama yaram trop trop trop moo tax nag ku yebu del dem di seeti détenu waaye del dem di seeti ñi wéri di waaye del dem di ziar armel yi ndax nag foo ci dem rek di nga delloo sam xel ci yàlla di nga xam ne yàlla rek mooy buur tey nag lu baax lu ko waay jënd jar na ko kon détenu yi yal na leen yàlla génne delloo si leen si seen sago ba ngeen nekkaat ci askan wi te itam ñun ñi ci biti yal na nu yàlla dimbali ba nga xam ne nii ñu ne ci lu jub ba ñu bañ noo teg fu ñu neexul ndax nag kaso comme la ñuy wax jombul kenn danañ la tooñ sax dugal la fa waaye daal kon li la jara ñaan maar yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla musal te aaral ñu boppam moom muslaa kon bu mag a mag bi ko waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ziar si àjjuma ji Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar si àjjuma ji. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di lay delloo ziar di nuyu ki nga ñi nga xam ne nii ñu ngi ñuy ci Leewtoo TV à travers ci monde bi fu ñu mën a nekk sax laay wax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si ñoom bu baax a baax. Babacar nag tey nag journaux yëpp xëy ak benn nouvelle nouvelle boo xam ne gaa neexul si ak si monde làmb ji muy jàpp bi nga xam ne Luc Nicolas gendarmerie Thiès jàpp na ko muy sunu làmb muy observateur record Leewtoo point net ba si nga xam ne moom mooy euh, tribune ñoom ñëpp ñëw nañ si jàpp Luc Nicolas boobu. waaw moom kay doone sax gaa parce que boo nee gaa day mel ni lu xaw a kii du du lu neex ci sénégalais yi mais rawatina ñun ñuy dund làmb ndax yaakaar naa Luc Nicolas taxawaayam ci Sénégal ku ne gis na ko rawatina si làmb. ci innovation ci façon combat mi taxaw bi ci bi mujjee mooy bëri ki dem li ñu doon soxla muy Ama Baldé ak ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo kon suñ ko jàppee moom defe naa ne képp ku bokk si làmb rek du doon lu lay war a neex parce que li tax mooy taxawaay moo toll noonu ci réew mi ñun nag li ñu koy dem mën a defal mooy ñaanal ko yàlla yàlla teggil ko tiis boobu mais teggil ko bépp doomu aadama bu ne ciy jafe-jafe di nit nag dundam moo mel noonu dund doomu aadama fekk yaa ngi ci àddina di dund rek lépp mën na la lépp mën na la arrivé moo tax li am solo tamit nañu ñaanalante jàmm te yéenente ko waaw loolu dafa am solo sa moroomum julli su nekkee ci xat-xat da ko yéene mu génn ci loolu wala sa nit laay wax doomu aadama lig Nikolaay man mii di wax ak yow taal nañ fi oto war a dem Gàmbi si turu Leewtoo yaa ngi dégg dem ba Mbuur doomam woo ñu téléphone taxawloo ñu ñu taxaw mu yóbbu ñu ci restaurant ñu tànn li ñu neex añe ko man la woon yàgg maar Fall ak Père Alsane boobu la ñuy dem ci ceinture bàyyi ñoon xoyantaan ba loolu Leewtoo la ko defal te loolu defe naa ne calis yëgu ko ndey ma Fall ko tonton Jaw yëgu ko te loolu lépp li ko waral mooy làmb ji ñu bokk te yow mii séq nga lig ay teraanga keneen noonu keneen noonu man mii noonu def na loo xam ne ni parce que nit kii i faut ñuy wax Cheikh Abdoulaye danoon géwél amul ku la defal lu baax nga wax ko daaw day tëgg fii rëg-rëg ak ak ak giride nanguut a wax fenn ma fekk ko foo xam ne nii ci biir almadi yaa ngi dégg ci signature ba mu ne man xaw ma nu ma lay def wax ak man yaa ngi dégg wa mu nekk nit koo xam ne daal li li nit ku simple nit ku baax la kon li mu nekk ni yàlla na ko ci yàlla génne di ko ñaanal détenu bu nekk ci kaso bi ndax itam euh, démb yàlla dafa dogal ma dem fu mel ni camp pénal mais doy na waar daal mais lig daal man Babacar li ma xam ci moom mooy xam na nit ku baax la di ko ñaanal yàlla ak yonentam bi ci barke sëriñ bi sëriñ Bamba mi nga xam ne mooy sëriñam yàlla na ko yàlla xet li génne ko ci xat-xat yi bu baax a baax Babacar journaux yi aussi ñoo nañu ne lan mooy avenir les combats bi nga xam ne moom la tëgg combat royal diggante Modou Lo ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé. waaw avenir bi moom mooy lu ñu def lu dul ñaanal ko yàlla rek avenir bi man lig laa koy delloo ba tey yàlla na ko yàlla génne ba mu yeggale combat am man loolu laay wax. yàlla na ko yàlla génne ci lii ci lu dul yàgg ba mu dellu siwaat mën a continuer li nga xam ne nii moom la jox Sénégalais yi te ñu ko doon xaar ci moom ñun ñaanal ko la ñuy mën a def actuellement wax ne daal combat boobu ñu jàpp mois de juillet yàlla na bi yàlla na ko organiser moom lig Nicolaay ne ci ginnaaw loolu laa koy ñanal euh, sunu làmb nag moom dafa ñëw xëy dalal ki nga xam ni mooy gri Bordeaux Gris Bordeaux daal moom nee na combat bi ñuy laam-laamee diggante Balla Gaye ak Boy Niang loolu du combat bi combat dëgg bu amateur sax la mooy diggante Gris Bordeaux ak ki nga xam ni moo mooy Balla Gaye muy combat revanche bi waaw loolu mu wax moom moom Gris moom tey Balla la xëyee nee na daal moom dafa bëgg lu lu yomb Boy Niang dafa nee na nee na daa jàpp ne lu yomb la ci moom na moom moo moom mooy combat bi waaw ñaar nag bëri woon nañu combat ba bari coow lool waaye ak lu mën a xew ah? Balla moo yóbbu ndam la moom laa du yëkkati loxom parce que Gris moom moo am avertissement yu bëri yaa ngi dégg kon nag c'est normal tey war nañu mën leeral seen diggante te effectivement combat bu jaadu la waaye nag quant à comme Balla daa lu yomb ak nangam ah loolu day moom ndax dina neex a wax Balla Gaye 2 ci la li waaw Gris Gris ak Balla man daal bëgg naa seen combat bi suuf liwaat ko man Babacar bëgg naa ko ndax ndax ñu defante xaw ma nag Balla pare na ngir loolu wala déet waaye Gris moom ni ñu ko déggee daa mel moom fi nekk nii moom lañ naan naaw leen fekk na so so so soccet jatu ngir moom daa mel ni jatu na di xaar ku ko laal mu naaw. Euh, baabaka kii di Xadim Gadiaga président écurie euh, Rock Énergie moom daal nee na ginnaaw bi nga xam ne waa Fass dàq nañ ki nga xam ne mooy Papa Sow nee na Rock Énergie pare na daal pour ubbil ay buntam kii di xam ne mooy Papa Sow waaw loolu de président Aigri baa ko wax muy xaarim nga jega kon dafa mel ni kon papa daa mel ni raflewul kon fu mu aw ginnaaw bu ñu ko daaxee ci Aigri Fass ndax bu xaarim nga jega muy président Aigri ba waxee loolu moom voie autorisée la comme ni ko tubaab yi waxee yaakaar naa ne kon tey papa am na fu mu war a mën a dem muy roog énergie bu ko neexee itam mën na sañ ci Aigri waaye la ma waxoon démb laay waxaat rek diggante bi donte nañ dàq nañ ko ci Aigri ba yaa ngi dégg mais daal na rafet rek na rafet rek na ku nekk-nekk ca la nga ne liggéey la nga war a liggéey te yéene sa morom jàmm parce que loolu rek mooy tax ñun ñëpp ñu am jàmm parce que nit ki boo ko yéenewulee jàmm itam te xamoo lu mu nekkee ak lu ñu ko bootee ah mën nga ci juum te yàlla taxawewul noonu kon daal la ñu rafet li démb ndax fas nit yu baax a fa ne papa wax dëgg nit ku baax la kon nañu fexe daal seen baax baax yooyu nañ ko garder rafetal seen diggante Babacar nag suñu jógee suñu laam dem fi nga xam ne mooy tribune tribune nee na ginnaaw Modou Lo Ama Balde ak ni ngi dox aussi combat ki nga xam ne mooy Boy Niang ak Balla Gaye nee ñaari VIP yi nga xam ne ñoom noo am problème adversaire mooy Tapha ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux waaw ñoom bu ñu amee problème adversaire te day adversaire dee su leen boole ñu bëri Tapha Tine ak Gris Bordeaux waru ñoom nañu bëre jël naa fi ba da mu naan noo parce que Medina ay xar ma ne ko loolu amu ci Tapha Tine bawal bawal écrit bawal la yor di défendre couleur ba Gris Bordeaux juddoo Medina yaa ngi dégg di défendre couleur écurie Fass ñoom ñaar ñëpp kon war nañu mën a bëre xam muñ jógee ci affaire séeréer sax ñoom ñëpp ay séeréer la ñu yaa ngi dégg mais affaire u écurie la wax tafaatin waa Bawal la Gris Bordeaux waa Medina ak Fass la kon combat lamb da leen a boole ñu gisee ku dox seen combat ñoom ñaar nañu jël bëre man loolu laa leen di wax loolu moo gën a wóor Babacar na suñu jógee si tribune nañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net mi nga xamal ne ginnaaw Papa Sow ko écurie daakay moom euh, mun na dem écurie bu ko neex wala mu sañ ci ndax amul benn condition ndax condition yi maanaam mun a def saison blanche su defee saison blanche amatul dara lu ko li ak li nga xam ne mooy écurie Fass bu pare teg si ne euh, renouvelé gul licence am si couleur écurie Fass. waaw loolu de bu amee moom fi mu nekk nii da ngay xam ne kon moom yoon toppiwu ko dara. ci côté administration kon ginnaawam bandang waaw kon daal loolu mooy li nga xam ne moom la ñu ñëw point indil tam lu am am solo parce que mbër bi bu defee année blanche ba pare renouvelé licence am kon defe naa ne écrit bi dootu ko topp yaa ngi dégg su dafa bëree daaw ba pare renouvelé licence am balay génn dinañ ko defal bon de bu koy génnee mais comme loolu amul nag ak xaaj bu mu fay bàyyi comme loolu amul nag kon daal fi mu nekk nii daa mel ni ah dañ naan njoorowal jàmm rek lay doon waaw Babacar nag euh, démb dafa mel ni yaa ngi seeti woon sa mbokk yooyu nekkoon camp pénal ñoom Modou Lo guy gi euh, ñoom Sa Thiès ñoom ñëpp ni nga fa yaayu Waly Seck euh, Kiné Diouf ñëpp nga fa daal Babacar loo fuuti woon démb waaw li ma fuuti woon de démb dama def reportage boo xam ne ba may dem reportage ba tey nag démb laay doog a dem reportage pour man parce que li tax mooy dama sama yaram dafa daw démb sama xol tooy lool parce que xam nga nit ak maqaam mi ko yàlla may ak cër bi ko yàlla may mu nekk xam ne dañ ko fay moroomam nitam a koy contrôler ci maanaam doo génn dem fii doo aw fii doo wax li doo jël li doo toog ni nii ngay loolu xam nga ne ku ne xam ne waaw ñu tënk la ku ne xam ne ne neexul ah xëy na nag ñoom ñoo fa dugg dañu leen lu ñu mën a def mooy ñaanal leen suñu borom bi rek yàlla na leen yàlla génne ñu dellu siwaat ci ñun ci jàmm waaw parce que mënuñu ne ñi nekk ci kaso yépp xëy na ñoom ñoo wàcc yoon parce que des fois di nga gis sax nit tooñ nit ñaa ngi dégg li olof di wax naan ay du yem ci boppam borom far mbir ma këpp la nga dugg ci kaso bi yooyu yëpp am na mais nag nañ leen ñaanal yàlla man nag li may rafetlu mooy tamit ka nga xam ne nii moom mooy caw ma nga xam ne moom mooy jiite kaso boobu nekk camp pénal moom itam gis nañ dem nit ki nga xam ne daal nit ku mat kilifa ku neex deret ay nit la ñoo xam ne ñoom ñi leen yore tamit ñu yore détenu yi vraiment ay nit yu baax lañu parce que lañ ñu xamal mooy fii tëjuñu fi nit ngir di ko bundu xataal ak torturer au contraire leen fi jàngal ay te métier liggéey yi leen di liggéey ndax sa bañ toog dem ne nañu photo yi ngay gis ñoom ñoo ko liggéey te nekkul ne boroom da koy liggéey ñu bàkko noonu dañ koy fay maanaam nit ne nañu nit dina ne ci biir kaso bi yore njabootam parce que ñu ngay liggéey boulanger rek lépp am na fa ñu ngi jaay mburu yaa ngi dégg lépp lépp ñu ngi koy def xam nga kon mu nekk foo xam ne nii daal milieu la boo xam ne nii xam nga dafa jara kii daal dafa maanaam jombul kenn daal comme ni ñu koy waxee waaye nag yàlla bu ñu fa dugg ñu dugg yàlla nañu génn ak jàmm ñoom Modou Lo roi des arènes na fa guy gi ay Mbaacu Njaay xam nga mbër yëpp ñoom Sa Thiès général Malika euh, Adama juuf Ansel Fall muy lu nekkoon lu neex a neex ak suñu yaay Kiné Diouf xam nga moom it mu nga foon ndax moom it dem na ne moom fii këram bas moom ne na moom moom mook ñi ñoo far moom chaque jour mu nga fa kon mel ni ki daal yar nañuy fàttaliku di leen bàyyi xel bu baax baax Babacar nu ñëw na ak manifestation ñu am si weekend bi comme euh, amateur yi moom daañu kontaan diggante stade Iba Mar Diop ak Adrien Senghor bu si Diofior bi nga xam ni foofu la euh, Yékini teg mise 3 millions bu nu fàtte aussi suñu bokk waa suñu làmb yi xam ñoom na jox euh, ngemm door bi waa écurie Yoff Babacar waaw muy loo amam solo muy weekend bu nara a sarse kon ci wàllum làmb ndax tamit ku ne xam ne ne suba petit mooy njëkk a ñëw stade Iba Mar job ak xeeru ngor ak ak booy yëmbal ci samedi ji te terewul ci même ci bés boobu wala ci heure yooyu ci la sunu lamb d'or bi lañ koy jox waa écurie Yoff ñu leen ci félicité encore une di tamit félicité waa sunu lamb ci initiative bi am na solo mais tamit ku ne xam na ne te dimanche ba jéy seen mooy ñëw ak libidoor bu bu Kayar ak Serigne Ndiaye 2 bu Fass muy combat bu neex a neex bu mag a mag a mag pour dimanche terewul Adrien Senghor am na mbapat Yékini mu nga joof yor ak 3 millions mu mel ni kon daal weekend bi bu sarse lay doon nañ ñaan yàlla rek ñu commencé ak bismillah rahmaani rahim mu amin Babacar si kàddu yoon na leen tàggoo di leen jox euh, lundi incha allah mais balaa ba muy nuyu sama yaay maison nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astane astandine chéri Khadija Diallo depuis Italie di nuyu Mbaye Seye depuis depuis la France di nekk naan ko dundal ay vacances yu neex nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, Pape Sita Baye Fallou Diamaguène depuis les États-Unis maa ngi koy nuyu di nuyu Asek chéri Khoudia Seck depuis aussi Italie di nuyu di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallou Rokhaya ak ki nga xam ni mooy euh, Moussa di nuyu aussi euh, ki nga xam ni mooy ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp daal Babacar. waaw muy gën a gaaw nag. waaw waaye boo ko kiyee moom. doo <laughs> tànk laa jaar ah déet waaw kon tànkee bu wóorul du wóor waaw <laughs> boo demee ba nar a kal moom nga taxaw man nag tey la may wax mooy daal ki ki nga xam ne nii moom parce que oh, dafa am lu olof yi di wax. yaa ngi dégg euh, tey ñun suñ dee wax ci micro wala ñuy fay salaire ki koy def promoteur lit la muy Pape Thialis Faye ba mu nekkagul promoteur Babacar xamu ko bi mu ko nekkee laa ko xam tey promoteur bu mag nekk na ci xat-xat ma ko ciy interpellé moom Pape Thialis Faye Aziz Ndiaye Gaston Mbengue ak Pape Abdou Fall képp kuy promoteur ak képp ku bokk si làmb sax nañu jóg jàppale seen mbokk seen fere lig Nicolas ndax yàlla tegil ko nattu bii ko dal yaa ngi dégg loolu tey mooy li may wax mais du nuyuwaat internet ñëpp maa ngi leen di nuyu ñoom Saasou Ndiaye ñu ngi Italie Fatma Fall tuuti Yaay Sarr Khady nuyu naa ñëpp képp ku nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre ñu ngi lay nuyu mais laay bu def ah bala boog euh, borom VIP Shop maa ngi koy nuyu yaa ngi dégg borom daal yi ci kolobaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko wax ne revue bi tey moom laa ko jagleel. <laughs> ba